Sénégal est-ce xam ngeen ni Sénégal mooy dëkk boo xamante ni dëkk bu naqaree am nekkee dara la gis nga am na yenn dëkk yi boo nekkee légende même boo demee ba gars yi soxlaatuñu si yow dara wala defatoo lu sax kenn teewul gars yi dañuy continuer di la adorer ba pare di la encensé nag aux yeux du monde entier mais Sénégal ngay gis koo xamante ni def nañ lu nekk ci wàll bu mu ne buñ jëlee exemple bi tax ñuy wax mooy musique Carlou D ba mu demee 2 bi gars yi humilier ko ñu jóge foofu bëgg a humilier ki nga xamante ni mooy Souleymane Faye ñooñu ñuy wax ni ay légende lañ yoo xamante ni biir Sénégal dañ leen war a jox cër boo xamante ni dina tax àdduna ak Afrique jox leen cër waaye ñun suñ bopp <laughs> ay ñoo bëriwul journaliste moo tax chroniqueur yi nga xamante ni dañ leen a jël fàng daj ñëw rek teg leen ci télé yi ñoom ñoo jël di joxe tendance yi nga xamante ne mooy xew jamono ji moo tax du ñu teel a mën a am légende te légende yi nga xamante ne dañ leen am sax nag far ñu ngi leen di tuutal ba ñoom seen bopp dootuñu sentir seen bopp légende lii nag lu doy waar la te war nañ ko seetaat sama gars yi jërë ngeen